diine moo wootee l'islam moo am bés yoonu murit moo xewle septième édition journée delloo njukkal ak sant cheikh mohamed fadel mbake xaadim rasul radiallahu taala anhu ak taalibeem bu baax bi te yow yaatu woyof am diine amuk taalibe taalibe bi jël léppam jox ko sëriñ fàllu mu di elaaji sëriñ Seydou Si mu sëriñ fàllu communicateur religieux de la banlieue bés bu mag boobee te am solo dimanche la fukki fan ak ñaar ci weeru janvier 2019 ca terrain marché jeudi ba ca corniche bu géejawaay muy doon ci kaw ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool Mbàkke te ànd ak ko wér sëriñ Abo Mbàkke Fàllilu xalifab sëriñ Fàllu Mbàkke sëriñ Basiru Mbàkke Fàllilu jëwriñu kër sëriñ Fàllu El Hadji Mbàkke yu fay représentant sëriñ Tuubaa ci Ndakaaru muy doon ci sous le patronage bu son excellence monsieur Macky Sall président de la République bu Sénégal ak soxnaam soxna Marème Sall bésub ren bi ñu darajaale ko nit ku yàlla jox daraja ndax jikkoom ju rafet yiwam mandoom tabeem di El Hadji Maxtaar Caan mu melax ambassadeur itinérant bu sëriñ fàllu ñu di ci delloo njukkal radiyallahu taala anhu El Hadji Babacar Kébé njuga boroom way wu rafet wi ci réew mi ak radiyallahu taala anha soxna maam Awa Sène mu sëriñ Basiru Fàllilu muy doon ci sous le patronage bu maître Oumar Youm ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement sëriñ Fàllu Lo Gaydel kilifa diine ca Nord Foire ndongoob daaray kokki jikkoom ju rafet wër na jamono monsieur Dame Diop ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat marraine ya ajaratu Momi Kébé mu sëriñ Saaliw ajaratu soxna Fatou Bintou Pouy soxna maam say mbàkke basiiru ajaratu seynabu diouf madame ana thiam bu alaaji babel thiam ca Suisse monsieur maxime jean simon ndiaye ministre secrétaire général du gouvernement dëkkee jàppale daara yeeg juma yeeg jàkka yi monsieur aly ngouille ndiaye ministre de l'intérieur monsieur matar ba ministre des sports madame mariama sarr ministre de la fonction publique madame néné fatoumata ministre de la jeunesse madame ndaye saly diop dieng ministre de la femme ministre Birima Mangara léppam Serigne Saliou Mbacké la monsieur Aliou Sall maire de Guédiawaye Cheikh Makhtar Diène croix sociale monsieur Beydi Sy maire de Ndiarème Limamoulaye monsieur Bassirou chef de cabinet ministre de l'intérieur monsieur Lamine Diop président directeur général Elite Transit président maître Madické Niang président Samuel Sarr dongab Serigne Saliou Mbacké bi jëwrin Lagan Serigne Khadim Gueye jëwrin El Bara Falilou ci Ndakaaru Habib opérateur économique ci Abidjan Serigne Abdou solidarité nationale monsieur Souley Diagne directeur général Alu distribution Serigne Medoune Sey borom Tawfeex Racine Ba responsable politique APR ca Géejawaay Babacar Ndiaye Ndak ma El Hadji Ale Ndiaye Alioune Thian opérateur économique Serigne Fallou Mbacké transitaire Lamine Camara directeur général Al Amin Transit Serigne Modou Ndoye couturier bu mag bi ca rue 10 Serigne Khadim Dia mu El Hadji Mbaye Dia Malay Mbuub mu Serigne Saliou opérateur économique Bekay Thioune taalibe Serigne Saliou ca Hollande Modou Mamoun télécommunication Cheikh Mbacké Gueye mu El Hadji Bara Gueye ca Géejawaay Libaas Ja kër Aram Jàppale Nazir Samb directeur Africa Bloom Abdou Ndiaye opérateur économique ca Kër Massar Serigne Makhtar Sylla Cheikhul Asral Serigne Maodo Sall Mara Modou Thian jëwriñ Serigne Fallou ci Ndakaaru Ousmane Thian commerçant ca marché Sandaga El Hadji mbay Ñebbe opérateur économique Khadim Diop opérateur économique Cheikh Malick Sène mu Serigne Cheikh Oumy Mbacké Xaban Fall opérateur économique mboolem yeneen leeral yu ngeen ci soxla woote leen ci 77 502 62 44 wala 77 919 16 32